sunu sababu daje bi fii nii ñun ñi nga xam ni ñooy détaillant marché Sam ñi nga xam ni ñoom ñooy jaay fii jën ñun ñëpp sentir nañu jamono yi yëpp activité bi nga xam moom la ñuy def fii nii dafa menacé wu. ndax lan dafa am benn groupe de personnes dañ koy wax bu baax muy ay mareyeurs soi-disant des mareyeurs comme ni nga xam moom la ñu koy waxee. te ancien mën nañu wax sax des anciens mareyeurs. te ñun ñun ñooy les acteurs en activité ndax sunu kayitu euh, association mu ngi nii. kii di sama ginnaaw moom mooy président association muy Habib génn lépp lu ñuy wax ci kàddoom lañu koy waxee donc ñoom ñoo ni bëgg nañoo déplacé wu marché Sam ñu jëlee ko fii yóbbu ko daral pël te ñun détaillants yi nga xam ne ñoo nekk fii nii bëgguñu fee jóge tey bëgguñu fee jóge ëllëg lan moo tax bëgguñu fee jógee gum ndax ku nekk xam na ni site bi fii nii yàgg nañ fi ndax ñuy bàyyi ñoom ñoo fi nekkoon ba tey ñun ñu nekkaat fi beneen bi ñu des moom mooy fa nga xam ne fa lañ ñu bëgg a yóbbu benn tali bi baaxagul. defaraguñu fa lenn loo xam ni mën nañ faa toog dafa normalement suñu liggéey amul toilette amul benn sécurité donc loolu moom moo waral ñu ne ñun détaillants yi nga xam ñoom ñoo nekk marché Sam ñun bëggu ñoo jógee ci site bi waxuñu nag ni bëgguñu ku ñu ko defaral ndax ñu ngi tàllal loxo képp koo xam ne ñëw na pour bëgg ñoo defaral site bii nii nga xam moom la ñu nekk ndax ku nekk xam ne image yu marché bii nii ñaaw na ci xar kanamu Thiès ndax Thiès en tant que Thiès deuxième ville du Sénégal mu am marché bu mel nii di jaaduwul ndax jamono romb na lii

Fi, nit waru fi ñew man 4 h du matin lañuy yewu ñun ñepp ñew fi bo ñewé fi ci biir all bi fi ñaari lampe mom moy tak fo xamni day recevoir 3000 wala 4000 personnes ay maire ay jigen. Yo, façon nit bu nek ngay gis fi ñaari lampe est ce que jaaru na ñaari lampe mom mo fi nek yu tak fee ñu daan gaare marché Sam dañ ni auto jini ndoxum jini day day indi problème wa jaxaw bañ jëliñu fa légui na auto jini yi ñu problème bobu ñëw nañ fii def ko parking di fi gaare yaa ngi dégg fay suñu gardien fay lépp mais nañ fi bàyyiwatu jën yi mais détaillé yi mënuñu ñëw fii di fi jaay loolu mooy problème bi loolu donc mooy wax ji ñun nangu nañu oto jën yi di gaara di wàcce mais ñiy jënd jën fii la ñu ñëw jënd ko yóbbu te fii amul tali yow fi nga jaar bi nga ñëw xoolal mbalit mi xoolal salte bi ana lamp yi ñaari lamp moo fi am ñuy wër di wax Macky xam ne ñoom du ñoom acteurs yi nekk terrain bi ñuy liggéey yaa ngi dégg ñoon lañ war di waxal su ko defee dañu am solution mais bu fekkee ni day jógee fële rek yaa ngi dégg sol mbasin bu rafet maa gisee nangam maa gisee nangam ñu d'accord ci condition yooyu loolu muy indi përër yi ñu bàyyi ñu liggéey suñu bopp ñun kenn fayu ñooy fayal suñu bopp mm-hmm. barki dem dañoo xëy fay béy rek guy gii nii benn yanukat boo xamante ni day daan doo dem mm-hmm. Mm-hmm. muuma guy gi moo ni tër daal ci kanam mu daanu wallahi lazim man maa ko yóbbu hôpital am na loo xam nit du ko def sax di ko wax est-ce que yaa mais da ngay dem ba si yàgg sa day daw dem bi ñu arrêté am na ñoo xamante ni dépense seen kër taaluñu ko ndax bu ñu xëyul duñu lekk ñun ñii ñu suñu dépense ñoo ko jox suñu bopp mais bu ñu xëyee ñu liggéey ñu aussi tamit day métti ñun.